internautes yu Dakaractu amaat nañ mbégte bu baax a baax ànd ak ak yéen euh, ginnaaw bi ñu jogee ci fête bi nga xamante ni moom moo nekk tabaski Euh, gëj ngeen gis trop seen série d'entretien yi ñuy amal fii si Dakaractu ñu profité si fête bi ñu génn ngir ziar ñëpp ñaanal ñëpp euh, yàlla may ñu fekkee ay at yu bëri yàlla may ñu tamit feebar bi nga xamante ni moom moo nekk si réew mi si àdduna si yàlla jëlee ko fii mu jeex benn yoon. alors tey nag seen yi d'entretien ñëwaat na delluwaat nañ tey si terrain bi na waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo sëkk langue politique bi. dalal c'est une figure emblématique de l'opposition sénégalaise il symbolise l'opposition africaine notamment si on se permet de le dire M. moo euh, monsieur Mamadou Diop Croix député de l'Assemblée nationale euh, membre euh, du front de résistance nationale est également chef de parti jiite parti bi nga le nom moom PADS alors honorable nous sommes la ziar la dalal si jërëjëf Daouda maa ngi lay euh, fay di la gërëm di la sant ci dalal bi nga ma dalal tey ci Dakaractu di nuyu itam ñi nga xam ne ñi ngi nuyu seetaan te ñaan yooyu nga ñaan euh, ma sof ci sama ñaani bopp itam ko ci ñi nuy seetaan ak ci Sénégal ak àddina euh, bi yëpp

Euh, jëloon ay mesures euh, lu ci mel des mesures yo xamné appliquer appliqué nañ ko quelque temps après ñu jëlaat yeneen mesures restrictives si on se permet de le dire ñu lever waat mesures ñu jëlone jëlaat nañ encore mesures yu bees mesures yu bees yoyu moy euh, fexé ba nga xamanteni képp ko xamné citoyen nga ngay yeewoo fi ci Sénégal ngay tak sa masque fépp fooy dem mais tamit ñu interdire lépp luy rassemblement fépp ci biir réew mi dans les places publiques comme privées ñuy sol obligatoirement masque interdire li nga xamante ni moom moo nekk plage yi alors mu nekk l' ensemble des mesures yoo xam ne jël nañ ko alors ban analise d' abord ngay def euh, honorable si mesures yi nga xamante ni jëlaat nañ ko si on se permet de dire jëlaat nañ waaw maa ngi lay gërëm ci laaj bi defe naa ne mbas mi daal. man hmm. naa laa wax ne la mbir mu yéeme la ndax feebar boo xam ne mënee su ko faj. Euh, dafa xaw a doy waar euh, ca njëlbeen ga mm, gis nañu sot nañu ne Sénégal docteur yi ak mhm. ñi ñiy liggéey ci kër docteur euh, defoon nañ ci ay jéego ci maanaam xam naa ay matukaay yu jël ñoom mhm. ba am ci ay résultats jeexital yoo xam ne Euh, bitim réew sax doon nañu ko rafet mhm. fu mel ni Canada am na ay boromi xam-xam yu ne ñoom daal euh, situation résultat yi Sénégal am ci xeex mbas mi daal moom mhm. xawoon na leen ja yéem. Mhm. Euh, booba nag am na ay matukaay yu ñu jëloon ginnaaw bi matukaay yi ñu xaw ko. yolomal yolomal. man nag ci njëlbeen nga. Mhm. le 17 avril. def naa benn waxtaan ak sa benn nattango. Mhm. Euh, Alassane Samba Diop. Mhm. ci matinal. may wax ne résultat yooyu nu amoon. nga xam ne boo demee ci réew yu mel ni euh, France Italie Angleterre Espagne. ca booba jamono ginnaaw bi la dugg Amérique. dugg euh, Brésil ak yu mel noonu. mais ci boobu jamono gisoon nañu ne foo xam ne euh, ñoom am nañu ci million nit yu ne. Mm. am nañ juróomi téeméeri nit yu ci feebar ñun booba million nit yu bu nekk ñetti nit lañ ci amoon yu feebar. Mm-hmm. gisoon nañu ne itam ñoom téeméer bu ne doon nañ ci am fukk juróom fukk ak juróom-ñett fukk juróom-ñeent. yu faatu. mu mel ni suñu moyens ñoo gënoon efficace jamono jooju ñoo gënoon euh, dëgër. mu suñu moyens moo gënoon a efficace. Mm-hmm. waaye li ci am mooy. Mm. danoo taxawewut taxawaayu euh, maam danoo seetut ñu li nu wuutale ak ñële. Mm. pour ñu mën a amit taxawaay bu wuute. ak ñële danoo dano danoo def rek na def dañoo ko copier. dañoo copier coller. ah voilà moom la def maanaam maanaam. Euh, kii def na euh, nu ko nu ko nu ko wolof di waxeeti sax da danoo danoo sotti rek ñoom la ñuy def dañ koo sotti. mooy copier te te segunu ko. te segunu ko mu <laughs> parce que parce que euh, ñoom dañoo jàng tëju naka jekk. Mm-hmm. xam nga ñoom dafa am ci seeni saison lu ñuy wax hiver. Mm-hmm. nga xam ne day taw glace ak yooyu. loolu naka jekk kon ñoom ci seen mbatit seen culture. Mm-hmm. am nañu ci euh, maanaam euh, jàng nañu ci mën a tëju. ay mm-hmm. weer weer yoo xam ne du ñu génn. lañ soxla lépp. waajal nañ ko. mais mais nun mënu noonu mënu loolu gis nga bi nu tëjoo fii ay fan rek <laughs> nit ñi ne non mënta ne parce que foog nga génn mm. euh, wuti loo lekk mm-hmm. koo xam ne amul amul solde mm-hmm. saa yu xëyee day dem dàqe ji mm-hmm. pour mën a indi ci kër gi kooku boo ko tëjee lu ëpp ñetti fan rek indil nga ko problème marché yi ñu tëj ko loolu itam du mën a dem parce que approvisionnement li nit ñi di soxla mm. Euh, mënuñu ko garder ay ay fan yu bari kër yu bari sax amul frigidaire rek maanaam daal bokkut man moo tax ca njëlbéen ga li ma li ma wax dama ne nañuy takk masque nañuy dandante ak di raxasu ma ne nag communication parce que affaire bi guerre la guerre da ngay xam maanaam ni ngay xeexe sax noonu ci stratégie yi ngay teg voilà loolu dama massa a wax ne ci tubab la ko xone article bu ma defoon le 8 juin. 8 mhm. juin tey le tay le 10 août. voilà mo nga kon mat juillet août ñaari wér mané nañu porter mhm. l'effort fondamental sur la communication maanaam nañu fexe ba. Mhm. li docteur yi bëgg. mu dugg ci boppi nit ñi nañ fexé ba mu dugg ci loolu nag euh, dama waxoon si kilifa diine yi maanaam euh, moo xam euh, l'islam moo xam jàngu aada politique yi ñi nekk ci association ak mouvement citoyen yi ñi nga xam suñu nañu fexé ba ñom ñuy wax ak nit ñi surtout ak ndaw ñi loolu suñ ko ba ku ne ah, affaire bii kat man na ma ray bu boba dinañ ko def soxla dinañ ko dinañ ci bayyi xel bu boba nga ci masque yi masque il faut nit ñi xam man amna ma ministre euh, Euh, bi yor industrie xaw ma. Mhm. ñu ne waaw ñu ngi defar dix millions de masques mais ndekete barki démb laa dégg ñu naan waaw masque ya pare na. bi loolu mat na ñaari weer wala ñetti weer xaw ma kañ la woon yàgg na de. yàgg na <laughs> mais loolu dafa doy waar. d'accord ci boppam. Mhm. daaw de. Mhm. quatre quatre heures war mënu koo weesu. su dee dama takk masque bii. su amee 4 heures war ko changer. Mhm. Sénégal. Mhm. nee naa au moins 10 millions nit yoo xam ne masque. 10 mhm. millions de masques. kooku mooy pour benn bés la. mu jeex ku nekk benn masque benn bés. benn bés la mu donc non gouvernement bi. vraiment euh, euh, taxawaay bi des na lool non affaire bi il faut ñu jóg ci bu baax a baax a baax d'accord honorable kon euh, da nga bokku ci ñu japp né euh, gestion crise bi euh, tâtonnement lañ ko amalé voilà gestion crise moo des dafa dess hein dafa dess dafa dess man bon président Macky Sall woté won le 22 mars leader yi ñëw ku nekk tok ak mom etc. 22 mars 22 avril 22 mai 22 juin. léegi ñu yegg ëpp na ñetti weer daal man jàppoon naa ne waroon mhm. na am ay mécanisme yu muy man di mhm. dégloo ñi mu waxaloon mhm. mu di leen déglu léeg-léeg di leen di di leen contacter ñoom bu ñu ko bëggee ko wax ak moom ñu wax ak moom ainsi pour ñu xam de par exemple ah lii de du noonu. boko ko defee woon nii boo ko defee woon ne et cetera ginnaaw. mbir mi moom buy ray nit du set carte parti wa nga yor. Ah, <laughs> du xool du ne bon man damay ray ñi ne ci opposition bay ñi ne pouvoir wala mm. damay ray ñi bay ñële. wala et cetera. ñëpp la concerné même ñi mm. dul pour ñëpp daal la concerné. d'accord mais mais mais honorable euh, demoon ngeen palais euh, gis président. Euh, ngeen déglu ko mu wax wax ak yéen si li nga xamante ni mooy taxawaay bi ñu war a am si xeex feebar bi mais boobu ba tey qu'est-ce qui est devenu toutes ces résolutions toutes ces recommandations yi nga xamante ni jëloon ngeen ko. non loolu laa lay wax maanaam euh, parce que bëgguma ñu euh, problème yi ñu doon wax ak yëpp ak affaire ci masque yi laa bëgg a dikkaat. d'accord euh, nee naa la. Mhm. fukki million masque suñu ko. doxalee nañ ko war a doxale benn bés la war a mën a am. mu kon xaalis bu baree baree baree bare la war a def ci masque yi mais suñu ko defut ci masque yi mais amul njëriñ. parce que bu dee damaa raxasu te aw ma masque bon dandante bi d'accord mais boo juumee ci dàndante bi rek affaire bi daal di circuler. Mhm. Euh, masque yi itam waru a cher dama ne sax bu nu ko manon di maye. Mhm. parce que Europe gars am nañu pouvoir d'achat man nañu jënd masque. mais fi ñu bare bare bare ñu jënd masque. alors su ma euh manam lek tay li ma war lek lekk ñu ne nañ ko jënde masque ma ma diñi koku day day wala ma fande day day day war. donc il faut ñu def un effort particulier vraiment sur le port de masque disponibilité accessibilité euh, euh, euh, euh un un coût réduit. accessible. pour ñu gën koo a voilà D'accord. alors honorable bu masque bi xam a yeneen mesure tamit jël nañ ko lu ci mel ni interdit rassemblement yi si yenn place publique alors nous avons jëm ay cérémonie religieuse qui xamante ni dina am si ci mel ni màggal li ci mel ni gàmm gisee loolu tam mais ak tabaski bi ñu man tabaski bi ñu xam nga tabaski bi ñu dañ ne euh, waaw euh, est-ce que ñu ne non non non nit ñi il faut ñu dem nangam mënta ñàkk xam nga wolof hmm. en tout cas <laughs> ci wolof yi am ci pulaar wala jola bi foo ci ne nangam mënta ñak kooku ay wax la waaw waaw waaw si pulaar alors mënta ñàkk mënta ñàkk loolu ci kaw boo ko mënee mais man mhm. eh, defe naa ne eh, loolu ñàkkul gouvernement bi ñu ciy waxtaan ak kilifa diine yi eh, gis naa ne kilifa diine yi en tout cas ñi ci gën a ràññeeku ñoom ñi ngi doxal bu baax lii li docteur yi santaane. ma man loolu laa seetlu. Euh, bon yooyu ñuy wax màggal yeeg gàmmo yi yegg seegul. je crois que d'ici ñuy ca yég euh, ñi nga xam ne ñoo ko séq dinañ ci waxtaan man mënuma ne. Euh, nañ ko doxale nii nañ ko doxale ne kooku. docteur yi ñooy mën a wax ak nguur gi nguur gi wax ak. kilifa yi. ñu seet niñ koy doxal mais mais bokk si ñuy jàpp ne euh, événement religieux yooyu war nañ xool ba nga xamante ni même bu mënee ñàkk am sax wala ñu xool niñ koy amalee. waaw loolu ba kilifa yi ñoom kilifa yi ñoom xam nañ ah, ñoom xam nañu. Hmm. Euh, xam nañu bu baax boo ko seetloo euh, ñoom dañuy takk masque. Hmm. kilifa yi gën a ràññeeku dañuy takk masque. Hmm. boo demee ci am na ñoo xam ne ubbi wuñu jumaa. am na ñoo xam ne. ubbi nañu mais du yi boo ca demee nit ñi dañuy respecter affaire yi takk masque etc etc mhm. donc je crois que lu mel dal daal bu ñu ko euh, waxtaanee ci seen biir. Mhm. man dinañ ci am euh, taxawaay mais globalement honorable nan dit que le état du Sénégal si euh, gestion de la pandémie le euh, plan de résilience économique le ñuy wax euh, aide alimentaire le fonds de riposte globalement nous gisee non alors Madame hmm. organisation. organisation. Hmm. ku up, kula upp ëpp organise ku la gën organiser. Mhm. mo la man ku faata ci organisation. mom mhm. euh, du dem. Euh, nun problème organisation la ñu am euh, li xew. Mm. ci mbas mi li mu mhm. du lo xamné ne wala barki démb la xew déedéet sax réew mi moy doxe nonu naka jekk. ba musiba mu yegg si daal di feeñal na mu ngi mel ni nga bëgg a jënd benn oto rek waaye waa ji bëgg la jaay oto nga tegu ci autoroute bi ne da nga koy testé xam nga boo testee dem ba kii nga rétrogradé <laughs> oto bi wan la ay ay jikkoom. Eh, bon di nga xam ne non kii kat léeg léeg léeg lii doxut société bi aussi li muy doxee. ak ay problème yi mu ci am te saafarawuñu ko. lu mel ni su ñëwee day wane nag euh, euh, ma day day day uññi daal suñu sutura. ci wàllu organisation. loolu la par exemple président ne waaw damay joxe ndimbal ci ceeb. Mhm. ceeb ak la ca des. Mhm. mais ñaata weer diggante ba mu ko waxee ak ba ca nit ña jotee ca jotin wa. Mhm. ñaata weer ñaata semaine ñaata weer kenn xamul nu mu toll. xam nga kon bu fekkoon nit ñi loolu la ñuy xaar. Mm-hmm. Eh, dee nañu eh, bon fii dañu dul def ay ay ay étude parce que ñi ko mën a def ñi ngi fi waaye amuñu moyen pour def ko par exemple boo doon xool eh, taux de mortalité ci feebar yoo xam ne xiif a koy indi. Mm-hmm. wala malnutrition maan lekk gu ñàkk wala gu melut na mu war a mel. Mm-hmm. ña fay ña cay jaare faatu boo mu doon xol mm. day bari xam nga koku kon soo nee dinaa leen jàppale ci euh, euh, dund mm-hmm. ñu tok weer ñaari weer baa lu ko ëpp et cetera te gisunu ko mm-hmm. bon donc euh fofu problème la bu rëy a ci gestion bi hein muy gestion force covid 19 voilà force Covid 19 bi euh, fond bi ngay wax bi aussi bon waroon nañu di def à mon avis nous nañu di def ay rapport mm-hmm. régulièrement di wax euh, li li la li la fan lañ ko duggal etc. yoy na di ama ba ñu def ko ko def sax ci internet bi. Mm-hmm. nga xam ne ku bëgg a xam nu mu demee boo ca yeggee di nga ko boo ko seetee gis ko loolu dina tax nit ñi seen xel gën a dal euh, dina tax itam ñu ñu gën a sawar pour sax mën a euh, joxe waat euh, xaalis waaye bu fekkee ne joxe nañu ñu ne Daouda joxe na Mamadou joxe na Moussa joxe na Jean joxe na. Mm-hmm. après affaire ba yem fa kenn xamatul nu mu deme C'est ce qui ci luy pour euh, transparence oui. Euh, ça oui oui oui transparence un mécanisme mhm. cest dire que du rek ñu bon na ngeen doxal transparence gars waaw. Mhm. transparence un am mécanisme ak ay règles. Mhm. dégg Euh, ponk yi ñuy tëral ak sart yi ñuy tëral pour saytu fond bi. Mhm. dañ ko dañ cee war a euh, def ne. Mhm. ay bés bu ne. Mhm. wala ñaari ay bés yu ne wala weer wu ne. voilà war nañoo wax lii def lii wane lii dugg fii génn fii yéeg fii wàcc fii. ba nga xam ne ku bëgg a xam nu mu demee dinga ko xam. waaye loolu su amul même bu fekkee ne yow bëgg nga transparence am. bon, <laughs> euh, Donc, il y a ce problème-là. a un problème d'organisation dans am il faut que nous sachions nous ñoo Nous avons une organisation parce que l'organisation ci une nga qui est lu mais nous avons une xam organisation parce que l'organisation organisation amee yow li nga bëgg jaxase dugal génne. et cetera mhm. doo ko man mhm. par organisation dafa am ay ponk ki sart ak yooyu yoo xam ne moom ngay topp alors Sénégal nag gaa yu bare ñu organisation parce que bu organisation amee dina leer. Mhm. te bëgg ñu mu leer. kon da jàpp ne euh, dañoo échec. puisque organisation. xeex boo euh, xam ne yaa ngi koy xeex te pareegul mënoo goo wax échec. looy xeex te pareegul mën a ko mën a wax échec mais mën naa ne daal am na ay jafe-jafe yu yu yu garaaw a garaaw te loolu euh, fokk ñu defaraat taxawaay bi saa dafa mel ni am na moment boo xam ne ñi ngi doon kurkuri après ñu bàyyi wax nit ñi itam comme liñ leen bëggoon a teg mhm. société bi bindoowut noonu pour mu mm. mën a dox doxut alors comme doxut ñee ñoomin daal ne comme doxut nañu nañu toog seetaan loolu mooy problème bi il faut daal ñu profito xaw ma nag ndax gars yi mënati nañ ko wala de temps mais il faut que ñu defaraat taxawaay bi sérieusement mm-hmm. euh, gouvernement bi li mu ci war a def mu def ko ci xam man nee naa mm-hmm. nañu masque yi d' abord na bare bare bare bare bare bare théoriquement tailleur yi fi ne maa ngi déglu keroog defe naa kuy toppatoo yu mel noonu la mu ne mm-hmm. am na euh, def nañ trois milliards ci masque mm-hmm. trois milliards du dara pourquoi duñu def trente milliards cinquante milliards ci masque ah oui parce que mais suñu économie tamit honorable suñu économie réew bi ñu nekk mais du 1000 milliards ko du da nga 1000 milliards la force covid waaw mm-hmm. bu dee 1000 milliards kay man nga cee jël 10 puisque masque bi bokk na ci li ëpp solo mm-hmm. li mëna a nit ñi mm-hmm. kon kay buma ci défé 10 jaar na am dé kon da kon da nga jàpp masque yi avant ceeb bi. wala ceeb bi après masque yi. sans compter que non xam nga yooyu. Hmm. man mënuma ko régler parce que. Hmm. c'est parce que nit itam nay def attention. Hmm. ci li muy wax. parce que boo nee ceeb ak masque lu ci war a jiitu boo ma ko laajee man day day day indi jafe-jafe. je crois que. ñi koy gere ñoom dinañu xam fan la niveau maladie bi toll. Euh, par rapport ak masque yi fan la niveau nit ñi toll par rapport ak xiif bi mhm. et cetera am na ay arbitrage daal maanaam yoo xam ne mhm. da ngay am information yi ci war pour mën a jël boobu décision te euh, aw ma yooyu information mais mhm. dama laa bëgg a wax nela la d'abord euh, dund bi dajul ñëpp xam nga dajul ñëpp te te lañu ca joxe itam ab diir nga koy lekk mu jeex te pourtant nit ñaa ngi fii di dem ak dikk. alors que masque bi bu fekkee ne li ñu wax moo nekk. masque yi suñu ci taxaw du sotti masque yi docteur yi euh, maanaam tailleur yi. tailleur yi fi ne ci réew mi mën nañ cee jàpp mais du doy.

en tout cas il faut une politique d'acquisition de masques. Ah, c'est man Covid 19 bi. tout à fait alors honorable euh, vous êtes acteur politique. nekk assemblée nationale. Euh, ñu vu, gis ne euh, si feebar bi gisuñ seen taxawaay hein. population bi ñu nous ñoo dit, koy wax gisuñ carrément noo xamante ñi nga xamante ñom lañu la ñu fal lu ci melni wa assemblée nationale gisaguñ leen ouvertement bu baax si euh, si si taxawaay boobu yow nan nga ko gisee d' abord honorable est-ce que faut changer de démarche. d' abord d' abord lan mooy liggéeyu député loolu lañu war a xam. Hmm. gouvernement mooy exécutif mooy kii dogal. Hmm. mais mën ngeen proposer yéen. doucement rek doucement ki yor xaalis. Hmm. voilà man ne xaalis bi fii laa koy dugal. xaalis bi fii laa koy jëlee fii laa koy dugal kooku gouvernement moo am boobu euh, pouvoir assemblée li mom am comme pouvoir moy mhm. contrôler action bi. Mhm. assemblée amul sax pouvoir ne gouvernement bi. voilà defal li defal li defal li non. mais souvent du ngeen mën proposer euh, lo xamanteni tamit état di ci dina ci baye xel. oui non xam nga xam nga euh, institution nu muy doxee gouvernement mo yor majorité. Mhm. ci assemblée mom day indi ci assemblée ne li la bëgg def majorité bi wate ne way defal baxna ça aussi c'est un problème léegi su euh, gouvernement bi di def assemblée war na mën a contrôler li gouvernement bi di def loolu mooy noonu noonu lay doxee. donc député mënuñu ne waa mbas mi mbas mi mi ngi fii nangam nangam mi ngi faagaagal nit ñi lan la député yi def. non <laughs> député yi kaw kay gouvernement bi. Hmm. moom la ñu ko a laaj kon lépp daal nañ ko gouvernement bi. nañu ko laaj gouvernement bi hmm. voilà. Euh, surtout tout maintenant nag député yi je en tout cas yaakaar naa na ñi ñi jéem a taxaw ni ñu mën a taxawee mais mhm. ñaare aussi nit ñi booy wax dañuy jàpp ne xëy na mhm. euh, ma fañ koy natte mooy ñaata la joxe non waruñu natt loolu ci ñaata la joxe mhm. parce que nit ñi xaalis defe naa ne du da ngay romb garab xo wëtt garab yi rek mu doon xaalis hmm? donc euh, ku nek da ngay mhm. est-ce que ming koy def wala defuko donc euh, je crois que loi d'habilitation bi wote won nañ ko mhm. euh, je crois que d'ailleurs jeex sax hein mhm. loi d'habilitation bi jeex d'accord honorable pour nous définitivement passe passe bobu nga xamné mom la ñu jagleel Covid 19 bi une toute dernière question est-ce que réellement jàpp nga honorable que ni mesure yi ñu jël yi ñu mujjé jël mëna aboutir à quelque chose. non non non non dafa dess dafa dess trop trop trop trop. kon la mënoon joxé li ñu bëgg. non non non non dafa dess lool man japp vraiment pour man gouvernement bi warna na euh basmi mi. Mhm. congiin wu bes congiin woo xam wi wu deugere deugere deugere lay doon parce que d'abord nee la. masque doyul. doyul mhm. masque doyul. Mhm. ñaar la nañu dama né nañu bu kilifa yi waxé ba nopi kilifa diiné wax kilifa a day wax les leaders politiques wax kilifa yi quartier mhm. chef de quartier. les présidentes de groupement de femmes. ASC imam yi curé yi ñooñu ba nit ñi gis ne a ah, affaire bi kat kon c'est très sérieux ba ma pare masque yi yomb nga génn nag armée ah, police ak gendarmerie su doyul nga yokk ci armée maanaam mhm. du pour ñuy dóor nit ñeek yooyu déedéet mais pour ñuy nemmeeku saytu waa ñuy saytu xam nga xam nga gars yi bu ñu kii di gis foo tourné gis gars yi mhm. te nee naa loolu ñetti semaine ñetti semaine rek ñu réglé affaire bi ah man limay may wax nii. Mhm. suñu dajalé matukaay yépp mhm. daal di ne top départ def ko ñetti semaine yo xamné 10 millions de sénégalais ku nekk bu xeyé tak maskam ba jatt so manam da nga japp plus de rigueur euh, dans la gestion. voilà pendant 3 semaines d'affilée. Mhm. sans arrêt. Euh, mbas mi day day daal di day dal dañ koy daane. D'accord. Parce que mi day daal di daanu amul problème. D'accord. Internet, internaute yu Dakar Actu TV Nous, ngi si seen euh, émission série d' Nous, yi ñuy amal saa su ne tey nag euh, ñuy dalal honorable député euh, Mamadou Diop Decroix maa ngi koy wax si présentation bi monsieur Mamadou Diop de Croix est na figure emblématique bu politique africaine si on se permet de le dire honorable yaa ngi yore parti parti politique parti bii di ànd jëf PADS. Alors, nga C'est exactement état de la gouvernance en Afrique et on peut partout euh, au Sénégal Non, oui, la gouvernance en Afrique déjà mhm. pose problème. Je, vous le disais tout à l'heure avant le démarrage de, l'émission. Mhm. euh, nous avons... Dans les euh, des femmes ont des problèmes. Et la gouvernance, oui. Waouh, waaw gouvernance bi euh, maanaam yorin wi mhm. yorin wi ci Afrique dafa dafa dafa gëll góose dafa dafa masa dafa masa doyadi ah waaw dafa masa doyadi euh, yorin wi euh, te Sénégal mucc ci Sénégal mucc ci euh, eh, ñàkk a doyadi googu yorin bi doyadi moo tax nit ñi mhm. maanaam askan yi peuple yi dañoo maandu ci gouvernement yi dañoo génn ci gouvernement yi te jàppatuñu ne gouvernement yi seeni gouvernement mësuñu koo jàpp d'ailleurs parce que ba fi tubaab bi nekkee teg fi administration coloniale nit ñi dañoo mas a jàpp ne eh, loolu du seen yëf mm-hmm. mais ña fi tubaab bi teg ba ñuy dem itam population dañ jàpp ne lii itam du seen yëf ba fii ñu toll tembe jàpp nañ ne du seen yëf la preuve soo demee di def ay ay ay enquête mhm. mais dañ lay nëbbutu duñ la wax réellement li ci ne xam nga ñun mhm. ay rapport yu bare bare yi ñuy liir fii correspondrewul ak ak ak réalité bi parce que mhm. nit ñi duñu wax nguur gi li ci ne d'ailleurs sax ñoom nguur gi la ñuy wax waaw ah, gars yi nguur gi donc duñ la wax li ci ne euh, rapport boobu de de de de de rupture rupture bobu am entre gouvernement yi. ak population yi nak tant que euh, manam manam tabaxaatuñu ko pont la. bu bu dag tant que pont bi defaruñu ko. euh duñu dem fenn. crise de leadership la wala wala la. crise de leadership crise de leadership xam nga sank ma ngi wax vision. Mhm. vision amna solo moy xam fi ngay que ñi nit ñi mhm. ak leadership mhm. donc euh, bon Afrique on a ce problème de leadership. D'accord. Euh, si Afrique rek euh, honorable parce que vous événement yi nga moment Côte d'Ivoire Alessandra manwatra déclaré un candidat en euh, troisième fois alors ca Guinée euh, gis nga ciow la ngi noonu nit ñaa ngi wàcc si mbedd mi gis nga crise bi nga xamanteni mom mo am Mali gis nga ca Mauritanie alors tay euh, crise leadership bi ngay wax tout à l'heure ak boole ci li nga xamanteni mom mo nek problème troisième mandat noko noo noko gisee exactement non comme yooyu nag maa ngi koy observer mhm. parce que mané su cee loolu mënu ko ñuko waxtaan ci ben réponse mhm. Euh, mangi observer situation bi. Mhm. mangi wadjal waajal euh, ay ay bind ak yoy communiquer dal mhm. mhm. mais fi mu ne guma lolo, bu paree dina communiquer. mais mais japoné ne non, noonu luy luy meuna ñew ci Sénégal Wa waaw yep, euh, dinañ ko dina ci dina ci bind wax ci li ma ci xam. bon Sénégal ki fi nekk wax na waxat waxat ne Eh, saa yi ma masaan laaj itam dama nan amul luñ ci tek hmm. mais dina magi ngi maa ngi bind parce que maa ngi suivre situation yi eh, affaire bi du euh, trois minutes nga ci mën wax dal dina ci dina ci wax inshallah allah. ci si wax ne euh, président Macky Sall dafa wara a génn une bonne fois. non non non vraiment nañ ne len exactement dina def wala duma def. nañu yamalé fofu xam nga. Hmm. wax na wax na du ma def wax na mënuma ko wax na duma def wax na mënuma ko mhm. ñiy ànd ak moom wax nañ ko mhm. ba pare ñu continuer naan waxal amatu benn njëriñ jàppoon ne mu leer benn yoon si bopp askan mu nu muy leeree ku nekk xam fi nga teg sa muy ah, eh, bu bu génnee ma def c'est-à-dire bëgguma troisième mandat duma ko def mu leer si bopp waxu wax na ko la waxu ko loolu déggoo ko boo demee ci internet doo ko ca fekk. même ñun biñ ko mujjee déglu dafa ne bi ne dirai pas nii wii du ma wax nii wii daal euh, nee naa la. Euh, maa ngi réfléchir ci affaire yi. bu jotee dinaa ci wax waaye nag. Euh, ku la ne mënuma ko. duma ko def. wax ko benn yoon ñaar yoon ñett yoon ñeenti yoon ñi ko wër ku ne ne la mënu ko. du ko def te boo demee ci internet fekk ko ca. nga ne nga ne kon da cee ko continuer di ci waxaat feeg ñeenti at man li mu wax laa jàpp aw ma lu ma ciy teg. nii wii bi mu wax tamit. aw ma lu ma ciy teg. li mu wax laa jàpp aw ma lu ma ciy teg. alors bu ñu waxee ci. Euh, constitution bi euh, wax nañ ne article vingt sept. non alors vraiment Daouda. Mhm. da nga may bàyyi ma xalaat yooyu ma la wax. Mhm. bu noppee ma wax. ak sénégalais yi. ak sama xariti africain yi mën a dégg. ma wax li ma xam. fi mom vraiment. ay waxu grand place. Euh, nit ki wax na waxat wax na waxat wax na waxat nga ne non na waxat lo xam ci quand même. il faut arrêter ça. ban porte de sortie lañu ñu ngir génnee Afrique ci crise bu mu nek c'est profond c'est très profond. motax ah moy tax li ma lay wax il faut nous... il mais attends 1960 y est-ce que les xew Mali sont na ay gars ils xam dañu jubbi ci jakar rey fa fanweeri nit gaañ téeméeri nit lolu amon 1960. kon ñoñu dañu dem dañu jëm kanam wala dañu Les ginnaw li xew euh, Côte d'Ivoire ay junni junni nit 2010 la 11 xawma la xew Guinée. Hmm. ak feneen ak feneen ak lii di ñëw te kenn xamut nu mu nar a demee yooyu saawaay dañoo war a toog xool ko. xoolaat ko bu baax ah oui bu baax. et pourtant ñuy wax alternance générationnelle daal ci yooyu laa nekk quoi. ñoo ngi ñuy naan alternance générationnelle peut-être ñu jox ndaw ñi euh, peut-être ñoom dinañ gën a mën a doxal. am na sama benn euh, responsable. Mm-hmm. étudiant eh, la mu ngi def naa wa wala pare na defe master. Mm-hmm. def na benn kayit bu ma yónnee ne daf ko bëgg publier. Mm-hmm. ma ko gis na ne wax na dëgg 1960 bi ñuy am indépendance. Mm-hmm. tuba bi ñi ñi joxon pouvoir yi amul mak amu ci danaka bo ci génnee sangor ak ufi bo ñepp ay ndaw lañu won woon. ñëpp ay ndaw lañu won ñoo faagaagal Afrique fanweeri at. ba tey. Euh, euh, Sénégal Abdou Diouf bi muy ñëw pouvoir quarante cinq ans la quarante cinq ans. Macky Sall bi muy juddu après indépendance la. Mhm. du dañ ne ne après les indépendances. Mhm. tey ji yaa ngi may bëgg a sonal ci. est-ce que day def troisième mandat wala du ko du ko def am nga bon ñii mu dénk. Mhm. Euh, affaire yi. Mhm. ñuy saax saaxee du ñu ay ndaw. bëri donc problème bi du problème mu ndaw ak mag wala góor ak jigéen walla ñu la xees. Mhm. wala gudd ak gàtt non problème mu euh, vision problème mu xam. lii sa waru gar nga tënku ci diko def waye buñ ko duggee euh mag ndaw etc ngay gis ne kon lima la wax euh, c'est principalement la jeunesse il y avait des jeunes you engagé Patrice Lumumba daf dafa engagé won dañ ko rey ak ñeneen ay yom um ñobé am bari na dal tout pour dire que le mal est profond et que donc, ce n'est pas une question de génération, c'est une question d'abord de vision, de leadership, d'engagement, de détermination. Oui, lolo soko amé ba nopi à mhm. ah, Limoulac, laaj. Mhm. dafa ci euh, minute pour répondre mais c'est tous les patriotes africains. Mhm. qui sont aujourd'hui Euh, euh, euh, interpellé. Mm-hmm. cest à affaire bi yàlla du ñëw dina ko lijjantil ba ilaa yow mi diini ñun ñoo war a xam li ci war. Mm-hmm. ñu taxaw ci dox ko mu dugal ci loxo mu sotti. waaye toog rek ci grand place yi ak topp sunu nu mu tuddati sunu clic yi. de mm-hmm. internet yeeg yooyu. du ko réglé hein du ko réglé il faut ñu jóg taxaw ci affaire bi mu jaral ñun lu ne la mu jaral ña ca des. mu jaral nuko est-ce que kon nga bokku suñu japp né il faut mu am ben rupture ak l'Occident. en tout cas il faut une rupture par rapport ak ni yëf di doxé c'est-à-dire. Hmm. rapport yi am naka jek entre hmm. Afrique ak ña colonisé won bobu rapport mom li fek dagguñu ko du sorti so loolu defe naa léegi ñëpp xam nañ ko. Hmm. du sorti maintenant naka lay démé